sëriñ bi suñ jotaayu tey bii mun naa wax ne jotaay bu màgg la ci jotaay yi nga xam ne yàlla mi ñu koy wërsëgalee suñ ñëwee fii tey nga xam ne ñi ngi nekk ci fan ni safar ñu xam ni safar di und ak li xew ci safar ak ni safar tënkoo ci réew mi tey suñu ñëwee fii seet si seet si la war nañoo am contentement bu mat ak yaakaar gu dolleeku ci ñëw fii fekkal la fi tey Mbàkke ñun suñu àndoo ak yow da may wax fii toujours ne ma euh, mboole seen combat buñ mës a dem wax naa ko jotaay yu bari Mbàkke yaa ci gën ndax da xeex génn waaye da nga toogit xeex bépp combat bi fi mës a am buñ naan combat ba nu mu demee addu kii rek yaa ñëw taxaw na bisimilah nañ leen dem ci combat bi doo lii li waykat yi di wax doo daw xare mukk xare bu nekk ñeme nga caa dem ca loolu li la ko may du dara lu may dund gi ngay dund li sa maam bàyyi ak sa bàyyi bàyyi ko moo la may fit woowu fit du lu nit di ta di taaxwaan da nit yàlla moo lay bind nga nekk ci ak njub wala deret jiy daw sa yaram nekk deret jooju waaye yow liy daw sa yow deret la xam nga deret yoo xam ne fu mu jige ci sëriñ Moussa mu jige ci sëriñ Bachir jige ci Ahmad ba càllante gi soriwut baay ak maam rek a fi dox kon Mbàkke du ñu def lu may sant yàlla di ñaan yàlla sa barke maam sa barke baay yàlla na dotteeku ci sa kaw di ñaan yàlla nga yàgg nekk suñu sag yàlla nga yàlla nekk nekk suñu wétal yàlla nga yàgg nekk suñu ndimbal ñun dey tiituñu pour wax ne président Macky Sall danañ la dimbale parce que ñi ànd ak ñun ñu ne na seen xol yu ñun la loolu war tax ñu am fit ci combat buñ ko wax ko danañ la ko rek ko combat buñ ko mas wax ne ko dañ ko gañee rek bu ñëwee wax la ko ne nga demal teud nelaw and nga ak ñun ci zahir and nga ñun ci batin and nga ak ñun ci sa fit and nga ñun ci sa xam-xam and nga ak ñun ci say pexé li ñu war xam moy Serigne Babacar Mbacké eh, li yalla dogal moy mo téewoon ci loxo rahma bi and ak mom ci mbollem combat yi ba ñex ci fi tay fiñ dalé won ak fiñ ñex ci tay dañoo wara sant yalla bu baax fi ñu dalee woon ak fi ñu ñëw tey caaxaan defu ko fiñ dalee woon ak fi ñu ñëw tey leer moo ko def leer moo xotti yoon yiñ jaar ba yegg si fii tey bari na ñu fi nekk bëri na ñu yëngatu waaye li yàlla dagal tey mooy suñ mbooloo mii ah kuy sóor dëgg ñu sóoraale loolu la yàlla dogal